الحمد لله ما سنت يلا لسنت خادم الرسول يلا لدل سنت خادم الرسول خليفة الرسول في الوصول لسنت خادم الرسول الله غرنت للبتال بن الله شيخ شيوخ شيخنا القديم ما لي بلا القتال للمخدوم أسلمت نفسي شيخنا القديم نقل المساجد بالجل المقدوم جفى الممن سعادة الدارين ديار كريم برك يا الكريم بنت القديم ميمونة البكي للميزة القديم ميسكي ما جيم مويد لسياري سنت نريال ما من ngi قول taxaw nun am na xaraanu dinañ am bànneex jébbalu waa nag nangu naan dal ndox mu neex musiba yeeg balaa nan ci mucc noog sunu njaboot gi bu nu gën di mocc moo tax ba maa ngi dellu sant yàlla moom mi ma sopp ko xam te yàlla gëm yàlla ak bëggu danay rasoolu lu ma masa am moom la ñoom laa wóolu xam naa ni bëgg xaadimu moo mën a may bal gu rëy gu ngóolu mooy sama xol saa bëti xol moom lay gis aw ma keneen mbàkke te yàlla na ma gis Seyxul Xadiim jébbalu waan naa maa ngi nangul ma maa njaboot gi ñépp noo ngi moo tax rafet jot ci yoon wi moo gën ku la sopp soppi koom nga doon gan déggaale bii Cheikh Moustapha Mbakiyu mooma ko dénkoon sol Makiyu Cheikh Moustapha na xamal ak taalibe moo di mbiram yoon wi defal ak taalibe amal ngor ak jom jaamu yàlla seexlul bi daaray sunna mooy la yella moo tax ma dal jaay sama njuréel man jëndee ko ak taalibe Cheikh Bamba ben defal nu jannatan ilal jannaati siyaari këri Mbàkke buñ ñeetaate te may nu fan bu gudd barke fegal nu am ndong-ndong njaboot ji Mbàkke saaxol la feese maa la sopp sama cofeel ci yow xajul ci aw ma kenn kenn ku dul yaay sama lépp sama xol baa xam naa ni lépp lu ma am ci yoon wi sama jobee ci yow yaa moom yoon wi nu fan wu gudd ànd ak barke ci darajay Maam Balla hay sa yoonu murit na ñépp bokku yokku sunub xalifa wer nu gën fee yokku aamiina aamiina bi jaahi Mustafa salla alayhi rabbuna tamassaba من سونا ما يبدل القديم المصطفى ما يبقى بدل المشاق المصطفى من سونا ما يبدل القديم المصطفى ما يبقى بدل المشاق المصطفى دين كنت أبتال بجيل ساهل سا من يتنقر عبات نمبر سا خمناني أو مصر من تزاهل وعيس ما يمير يا طير يا تاهل saa yoo xamee ni maa ngi jëm ci xaadim di ko siyaare ba su saa xol bi day ni galaas akuk suux ngir li mu ñan mbooloo mi kenn dootu ju jaay naa sama njureel ci Seexu Bamba jëndee ko ab taalibe ngir yonen ba jaay naa sama njureel ci Seexu Bamba jëndee ko ab taalibe ngir yonen ba Cheikh Moustapha noon na ma jaamu yàlla booleeg liggéey mooy tax a gis amal ngor jom fonk jaamu yàlla seexlul bidaaray sunna mooy la yàlla Cheikh Moustapha noon na ma jaamu yàlla moo yor kërug laaxira jaamu yàlla Cheikh Moustapha noon na ma del liggéey moo yor kërug nan liggéey moo tax ma toog daaru di jaamu yàlla booleeg liggéey ak sax ci sant yàlla yal nu Seex Bamba defal karaama ba suñ liggéey yéen am malaama ma toogal daaru Seexu Bamba moo lay yoral boppam ka saa ba toog naa ba gis waa kër Sëriñ Tuubaa yoon yoon ak mbër yi jëflante nag ñoom ba xam ci saa xel yoreelu Cheikh Bamba xajul ci ab xol Bamba kenn du moom te moom du kenn kenn mësula gis ku mel ni moom ci fenn Bamba kenn du moom te moom du kenn kenn mësula gis ku ci fenn Cheikh ser jaa tax mu naa ma jikko mooy di nit ngir mooy tax mu mën a sàkk